a jot moo leen vidéo boo a xam moom la rek. moom sëñ sooy bu ñoo bokk ndey ak bàyyi waaye bi mu feeñee sëriñ bi ci boppam feeñal na ci ay yëf lool yoo xam ne yu ci nekk rek feeñal na ne kii borom mbir la bu yegg la waaye bu yegg si ku taseeg jamono moom jamono da xam ne borom mbir la. kero bi nga xamee ne gane ne àdduna te mooy bis bii ñuy waajal nii di ko màggal nii sëriñ Tuubaa ko njëkk a màggal soxna Roqaya Mbàkke mi nga xam ne moom la sëñ bi féetale woon loola te muy doomi sëñ mbakke Mor Anta Sali te moo jur sëñ say sëñ sëñ Balla Busa ak sëñ Mor Roqaya ak sëñ Ousmane soxna Roqaya moom ñëw ci sëriñ bi ne ko mbirum soxna Mariama kat ganam gi ñuy war a ganale suba aada gi ñu ci daa def tudde ko serang dañ ci daa def nangam ci ceeb def ci nangam ci pepp di laaj ndigal sëriñ bi ngir mu joxe ndigal ñu joxe ko sëriñ bi ne waaw moom day dafa bokkut ñu bari nañ def léppam ceeb ndax moom de xam naa ku ko mag waaye xuma ku gën kon na ko sëñ bee njëkk a wax sëñ Abdou Lahad mooy kan. ndax ci saasa wax nañ ne woo na ay jëmm yoo xam ne ci taalibe yu mag yi la xamal leen ne nangeen dem fa nopp ba ngeen jàng fa xasit gu ñu tuddee fusti bi zarfil xasanaat fusti bi zarfil xam ne mi nga xam ne mooy yaay Seydina Isa Seydi Seydina Isa moom la moom la fa sëñ Tuubaa di tagg moom ne nañ ko jàng foofa tifli ko ci noppam te it ne na ngeen ko ñaanal mu dund ndax am na ci moom yaakaar lool yaakaari sëñ Tuubaa ji yi mu waxoon nag والبكاء على سادات الأموات أبي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك على سادات الأموات أبي الأراضي عليهم كالسماوات وقلبك yaakaar jooju nga xam ne moom la amoon ci moom du yaakaari kese képp day lu mu gis xam ko ndax ku gis sëriñ bii nii bind bi mel gis nii jëfam ji mel gis nii jikkoom ji mel gis ñeme dëggam gi ak bëgg dëggam gi ak ni mu wéetale baayam doon murid saarix ni murid yëpp murid bëgg na dëggal gënoo ko gëm sëñ Tuubaa loolu da xam ne kon loolu sëriñ bi waxoon ci moom ne yaakaar na ko yaakaar joojee lu bëtam la waaw yaakaar yaakaar xam ne ji lu mu tegoon bëtam la ku koo xam ne kii fekk nga jamonoom gis nga ne yaakaar lu mu yaakaaroon ci moom mu ngi ci moom dëggal na yaakaaram. ku xool fi mu jëlee yoonu murit ak fi ko andi da nga xam ne yaakaari Serigne Touba jooju tasu moo fi jëkk tudd Abdoul Ahad Serigne tudde ko ko Abdoul moo fi gisati rek moom lañ ko tudde ni nga xamee tur yi li muy tekki mooy kenn noonu la nekk woon kenn ci jikko ji ak fit wi ak euh, pastéef bi ak taalibe gi ak gëm gi yàlla ak euh, dog gi sëriñ baara moo nettali sëriñ abdul ahad ne ko dafa doonoon xaritam lool mu ne ko sëriñ baara ndax xam nga lu tax ma teel laa tudde doom mu ne ko bëggoon naa ko xam sëriñ baara moo ko wax sëriñ abdul ahad ne ko ndax sëriñ abdul xam nga lu tax ma teel laa tudde doom te xam nga lim ko màggee bari na. sëñ ba sëñ Abdou ne ko waaw moom de Mbàkke bëgg naa ko xam. mu ne yàlla dafa def bis bi nga ganee bis bi ñay bis bi ñay wutal aw tur dafa maa fekk ci sëriñ bi. ma egg si fekk muy joxe ndigal sëriñ am satu ngir ñu tuddi la. ma yam ci. gis muy wax ci yow ay jagle ak ak ak kiimaan yu rëy a rëy rëy daal di joxe tur ne nañ dem. nee na biñ jógee ma ne naa xool ba xam danaa mën a ànd ci yëf yi am de ndax lii kat mosuma gis bi def ko lii mu ci wax mosuma gis mu wax ko kon nag naa dem barkeelu ci may xool ba xam bu ma jógee dana mën a toogal wala dana mën a dana ma bàyyi nee na ma daal di jóg topp ci ñoom di déglu nee na ma dem xuma dara ma dikk ànd ñoom ba ci kër gi ba ci néeg biñ koy tudd sàkkulew tur biñ tolloo ci sàkku ba nekk ci biir rek sëriñ bi jékki-jékki exil boppam fekkaat leen fa te loolu nee na mësta am daal di jaaraat ci la mu waxoon ci soxna Roqaya ne ko moom day mënees na ko mag de waaye mëneesu koo gën te am naa ci moom yaakaar daal di wax it kilifa yu mag yu yàgg yàgg daraja yi ñu wàccaale woon jamono mu ne moom la wàccaale jamono yoo xam ne xëy na du jar ma di ci jaar. bi loolu amee sëñ Baara ne ko loolee nag ba ma ko déggee ci laa jaayante ne maa leen njëkk a doom moo tax ki ma njëkk am di sëñ di muy sëñ Abdou Lahad mii di ko sëñ Abdou Lahad magi bëriwul moo tax mu tudde ko ko Serigne Touba moo ko dalal alquran jébbal ko nijaay ja sëriñ Amsatu Jaxate ba mu koy jébbal sëriñ Amsatu daf koo wax ne ko jébbaluma la koy ci aada ji xew ci réew mi mooy man duma góor guy jox doom nijaayam ngir la muy nijaayam waaye damaa def ci yow loo xam ne loola laa bëgg ci moom te bëgg nga defal ma ko ci sëriñ Tuubaa moo ko gunge ñamal ko ca ñamu aljana ya dindi ci moom fàtte ak mooy sëriñ Abdoulahi Jaxate ak sëriñ Abdou Lahad kenn ki mi ngi tollal ci sóoratu Fath ki ci des toll ci sóoratu Sooree sëriñ bi tari loo leen seen bind ba mujj ñu tari ko tari ba xaw a taq sëñ bi wax si Abdou Lahad ne ko jege sil mu jege si mu ne ko ŋaal mu ŋaa sëñ Tuubaa tifli mu jàll ci gémmiñu sëriñ Abdou Lahad mu ne ko wanaasul daal ne ko fàtte cirub saytaane la fàtte laa bëgg a génn ci yow. lu moo ko du ko fàtteeti mukk ci àdduna am na jamono yoo xam ne wax na ma ne bu fekkoonte ne jamono yi may am ak jot mm, te daa wër ci àdduna ji am naa lu mat junni nit ñoo xam ne dama leen a xamandoo waaye xamal woon ci benn birab bu ñu seet seetee gannaaw bi muy dikkee ba nga xam yegg si naa fii nga xam ne amatuma jot sama xel nekkatul ci ma daanaka ku ma jox loxo ajoot ah, ñu dima la nuyoo naa kii diw dana jaar ci saw sant mën naa ko ba junni yëpp mat. yàlla yi def na tawfiixi ñoom ñaar muy Serigne Abdoul Ahad Abdullahi ñu jàng alquran mokkal ko bind ko ci teewaayub Serigne Touba kon loolu it dafay tegtale ne ñu teel a wattu alquran lañu. am ñu wax ne jot naa bind kaamil jox ko Serigne Touba am ñu ne déet kaamil bi bim laata àgg fekk na sëriñ bi wàccub liggéey. waaye li gën a wér nag te ma jëlee ko sëñ Abdullahi Jaxate mooy kaamilub Serigne Abdoulahat Cheikh Mouhamadul Moustapha lañ ko jébbal waaye du Serigne tubaa loolu ci làmmiñu sëriñ Abdoulaye Jaxate laa ko nangoo قال لي قبل أنت اليوم مغترب عند النسارى سوي الأسياف والسمور جوابه حسبي الله الحسيب هنا وهو الحفيظ الذي يغني عن السمر moom la ko yàlla bëgg la woon ndax wax na ne kanzil kitaabu wal xadiisu wal adab laa jam u fiddatin wala jam u zahab trésor am moo di alquranul karim xadiis yi yonent bi ak xam-xam yi ci des alquran doon wàcc di jël jëmm amul sikk ni Cheikh lay tànn ni alxuraan nekkee dëgg la Baay Laat yëkkatee dëgg teel a xam li ñu koy doye teel a xam yan ba teel a peeg xam-xam diine dégg lool alquran. wala tajharulahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun innal lazina yaquluna asma'na inda rasulillahi ulaika allazina imtahana Allahu qulubahum litaqbalu maghfiratan wa ajrun 'azim innal lazina yunadunaka min wara'i al-hujurati aktharuhum la yaqiluna walaw annahum sabaru hatta takhruja ilayhim lakana khayran lahum wallahu ghafurun rahim. kon wóor leen noonu rek lan war a ànd ak Sëñ Tuubaa noonu la mel ci wàllu xam-xam bi ci alxuraan ji ci xel mi ci fit bi. fit woowu sëñ Abdou Lahad kon bi mu génnee fii colonisateurs yi ñu ne bi fi mu fiy toog ak bi ñuy euh, góomu colonisation euh, sax mën a wéragul muy ñëw jàkkaarloog euh, gouvernant yi fi nekk di wax loo xam ne maanaam ci gàttal ni ma la ko mën a waxee bu ko waxee dana yóbbaale lislaam yëpp dana yóbbaale sëriñ sëpp dana yóbbaale dongo yëpp kooku am na fit fit day dimbale pas-pas am na xel ndax lu mu tàng tàng la muy wax na mu koy waxee doone mukk lii la bëggoon a wax wala laa la bëggoon a dafay leer nañ te dana ko defend da la ko la ko la ci argument yi may ci ay droit dana ko jël ba mat sëkk. ku ku ku ku jeexal gor takk la. du la wax mukk lëf nar lëf. ne la wax def ko ne bëgg la waaye la wax nar ko nag kon sañ na ko. bokk na ci jikko yi jël ci sëriñ bi. xel mu rafet. xol bu rëy. tabe. aw fit ak ñeme dëgg Cheikh Abdoulaye nit la ko xam ne eh, mbiram mépp mënees na koo tënk ci ne karaama Sëriñ Tuubaa la dëgg la sax ñoom ñëpp karaama la waaye kenn ku ne ak ak ak ak ngeen jot suñu vidéo nag si biir réew mi jot moo leen vidéo boo ne dugal nañ ko ngir mën xam li nga xam ne